Omar la da waaw mais de non place bi nga jublu. waaw waaw yaa maa nga fiy toog. non man j'étais compris par parce que ma saan di waaw nii ngay def nii laay def. waaw léegi ji nga. damay lii. waaw ah, loolu la rek place loxo ba la woon Pape Djibi Fall waaw ak loxo gauche ah, bi Pape Djibi Fall ñu ah, ngi koy nuyu bu baax a baax di ko <laughs> di ko gërëm bu baax ci di ko santa mhm. mais aussi xaw a jaxasoo tuuti parce que. Mhm. Euh, tey doo nga xëy Kër Massar am nouvelle bu naqadi. lan mooy euh, benn gardien mbaar. waaw depuis dix ans muy garde benn parking ak benn boulangerie foofu Grand Médine Kër Massar. Oh, oh. boo dem Alaaji Paate démb ci guddi trois heures matin comme guerre. lan la ay fetal. dóor ba mu dee ay fetal. agresseur ah, ba mu dee ay fetal jaar ci pharmacie mais comme si. nekk seen oto di dóor fetal. ba xanaa foofu amul ay police ak yooyu. non non xam nga ni gendarmerie Kër Massar bu ma dee wax moom day mel <laughs> ni damay ñaxtooti mais ay quatorze élément ci benn département bu toll noonu ñooñu mënuñu assurer kaaraange gi foofu. mais insécurité bi am Kër Massar daal di pharmacie. année gardien bi gaañu na. non rey rey dóor fetal ba mu faatu waaw waaw. comme lii course poursuite gaa ñu ñu ko dégg naa dafa mel ne guddi guerre la fetal tër tër tër waaw suñu xamoo ki ko xam def na fukki at yor njabootam ñu xëy daaneel ko nii comme ça. <laughs> ñi ngi def enquête jàpp guntu woon kenn nag ci xibaar yi mujj waaw kon mu ngi noonu lool mooy tax xaw jaxasoo bi tuuti parce que yooyu day yàqi nalaw aussi mais aussi dangay ngay tiit ci sa bopp parce que tamit bu bu demee ba en pleine ville lu mel noonu mun a xew ca fa mu xewee dafa jege loolu tali bi te ñooñu def ko mën a dem seen yoon te ba tey ji jàpp guñ ci kenn da ngay da nga koy nat sa bopp waaye tamit euh, di ko rek euh, ñaanal suñu borom jéggal ko di jàll ay mbokkam yëpp di ñaan yàlla musal ñu sàmm ñu mm. kon ci kanam incha allah ñu sóobu ci waxtaan wóolu naa leen suñu takk der yi léegi mm. ni jàpp nañ leen ñooñu war nañ leen a mën a ndaxte nag li xew ci Sénégal léegi doy na waar amul foofu de ci pharmacie xoolal ñooñu koy semaine passée defoon nañ ko ci dañuy ñëw ci pharmacie garde beeg yooyu yëpp il faut ñu jóg ci ñoom mm-hmm. Sénégal yëpp sax la ñu war a jóg nag boo bëggee dégg dëgg Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar. Adja ñi ngi lay fay. Mhm. di am mbégte ak kontaante ci yow. di dem ba Touba nuyu xalifa général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak wér. amiin waaye di ziar di nuyu sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké. Mhm. ñu koy ñaanal Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin yaa rabbi di di nuyu sëriñ Xaadim na ci kër ga ak yëpp. Mhm. ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacké borom Karim wax la di nuyu kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Eh, di nuyu Mama Dieynaba Fall sunu mama la waaye di nuyu mhm. monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di am ni ak kontante eh, ci ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu di nuyu imam mhm. bu baax di ko ziar di am ci moom mbégte di nuyu Omar di ko masawu ca la nga xam ni xew na fa ci Kër Massar mhm. di ñaan rek suñu takk der yàlla nañ gaaw jàpp sàmba boo yooyu ca nu mu gën a gaawee te it teg leen ci yoon moo tax nag eh, li lislaam wax sunu borom a ñu gën a xam nit ñi ku rey nit rayal ñooñu dañ leen a waroon a jàpp pour faat leen ci saasi di nuyu bu baax euh, pap ah? doon na la ko lan di nuyu bu baax euh, Pape Djibril mm, di am ci moom mbégte ak kontante xam nga diine mm-hmm. moom diine ah. boo diine moom jëfee rek yàlla li mu wax moom boo ko bëggee wëndeel rek di dugg ci leneen rek yaa ngi ci leneen ku rey nit moom dañ laa war a faat bakkan bakkan mm-hmm. bakkan bakkan a koy fay ayca PDF maître maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw bétti sant yàlla bu baax di leen nuyu di nuyu maan yi ak waa régie mhm. euh, di jaale kooku aussi di ko ñaan yàlla xaree ko àjjana. mais comme ni saa wax rek moom ku ko rey dañ laa war a rey. parce que déjà rey bakkan boo xam te ni ñi mu yore. peut-être sax moo la ëppoon njëriñ yàlla moo xam. mais euh, dafa euh, war nañ ci daal gën a jóg si yooyu daal. parce que insécurité moom. baaxul si réew li mooy bu leen jàppee ñu tekkiwul dara la ñuy doon. wala ay moroomu doomam. cest à insécurité dafa doy waar parce que déjà euh, day tax nit ñi comme ni nga ko waxee nit ñi duñu duñ nelaw bu ba kii kenn du mën a liggéey day dafay jafe daal jóg fajar liggéey sax da lay jafe voilà mais yàlla ko yàlla xare àjjana amiin amiin am na xam naa du ñàkk sax Omar dina ko ci pëtaxalaale waa imaam euh, Gaye Bey Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw soxna si ñu ngi lay fay mhm. fa tabarakallah lay fay di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal di ñaan barab bi yàlla na ko yàlla barkeel. Mm-hmm. amiin eh, di ci am rafet njot ndax li tax ñu am rafet njort mooy kilifa gi tedd nga xamante mooy borom barab bi. Mm-hmm. mu nokk mu nekk koo xamante ne dafa am cër si réew mi. Mm-hmm. yàlla dogal bokk na si li ma ko gën a nawe ah doomu soxna ak fi mu jaar. gedd lépp gedd at yi wax dëgg yàlla jël responsabilité bi liggéey daan dooleem di teral ay doomu aadama loolu wax dëgg yàlla jihaad la. kon ku mel noonu yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko yàlla na ko xara ajana li mu bàyyi yàlla na yàlla teg loxo yéen itam yàlla xormaal leen dëgëral leen ba yéenam ci yéen ah lépp ngeen mottali ko bu loolu weesee comme li mbokk wax dañuy jaal rek ak mbokk comme li mu wax su suñu mbokk mi faatu fële Kër Massar Sénégal dafa nekk réew moo xam ne maanaam ñëpp benn lañu kenn ku manqué day mel ni ah, famille yëpp la manqué wa tabarakallahu waaye nag alxuraan moom leera na lépp ñun islam moo mën a régler problème bi bu dee dëgg yàlla bu ne ani bi nafs wal ayna bil ayna wal anfa bil anfa wal uzna bil uzna wa sinna bi sinna wal juróo xisaas mais lu simple la boo rayee nit nan la rey. Mm-hmm. nga dagg loxo nan daggatu loxo bu loqee bët noonu nga dagg nopp noonu. la nga def daal nu mu toll boo jamee nit ñu natt jam jam nga xisaas fi nga xamante ne fa nga jam nit ñu jam jam bu toll noonu ñu jam la foofu. Mm-hmm. lépp lépp daal daal seem parce que la wala dirara bu lor waaye bu la kenn lor. bu la kenn lor macha allah dëgg la am na solo imaam euh, ñu dem régie ñëwaat dugg ci waxtaan wi. Omar ñu bàyyi la ak euh, imam imam euh, Gaye euh, Bey mhm. c'est sec ah sax la ñu ubbee mais mhm. ci karange lañuy des yow sa karange yow tamit ci ñoo xam ne da la doon xub ca diwaanu ko géejawaay ba nga jël ab plainte dugal ko ca police bu géejawaay menace de mort yooyu la eh, ngay tudd ci lal la jóge waaw loolu rek yàlla dafa dogal a ah, ñun ay kilifa la bokk ci gox boobu njaareem li moom lay wax dëgg yàlla nekk ay nit wax dëgg yàlla mu am fuñ teg naw ñu yàlla dogal ci jamono yooyu am na ñoo xamante ne bu ñu gisee sax wala ñu yëg ni xëy na maa ngi dama adresse parti parce que man mën na leen jaaxal mm-hmm. waaye islam dafa am fu mu toll mm-hmm. bëri na lu yàq senegal mm-hmm. li ko yàq mooy yi nga xamante ne dañu nekk ay nit diine wala ay nit dañ leen naw wax dëgg yàlla ñu écarté wu si politique bi parce que Sénégal mu toll waruñu ko bàyyi ak tubaab bi ñuul rek ñu doxal ko. Mhm. parce que islam moo mën a régler solution bi. Mhm. ba tax na bi ñu xoolee boo xool xam ne am nañ ci cër. Mhm. te wax dëgg yàlla am na lu nekk si ñun ci xam-xam taxawaay. wa tabaarakallaahu ñu xool koo xamante ni xëy na suñu gis ak gis-gisam maanaam bokk na. loolu moo tax ñu sóobu ci. yàlla dogal bi loolu amee xëy na bi a ki ci dugg tey ak ci am téeméer at ñooyam. boo ci duggee tey nga yeesal sa yéene sa pas-pas. engagé wu yàgg ñëpp a yem. Mhm. parce que lu bees amul. Mhm. mooy ba ci parti. ki mhm. ci dugg am ci téeméeri ak ki ci am dugg am ci weer. sentiment pas-pas bi ak taxawaay bi ak ngëm gi loolu moo ci solo. loolu la ñu xool moo tax ñu jël suñu engagement. dugg ci parti Pastef. waaw parti Ousmane Sonko léegi militant wu parti boobu nga. waaw adhéré nga ci. Mhm. Euh, mais ginnaaw bi nga ci adhéré dafa am ay menaces de mort yi nga ne ñenn dan la koy def. dama ah. bëgg nga nettalu ñu nan la demee. voilà kooku ni mu dee mooy man njort bi ma am ni noonu la loolu moo tax. Mhm. parce que assisté na ay réunion ci gox bu foofu yàlla dogal ah li si ëpp maanaam jataay bi non dan ma ko cëral woon. ma encadré ay xale. beneen bi mooy place de l'Obélisque manifestation bu amoon demoon naa fa. bokk naa si ñi njëkk jël kàddu. xëy na ñu bëri te xëy na affaire bu jaaxaloon na leen. waaye loolu ginnaaw dañoo engagé wu te réew moo woote woon moo tax ñu jël suñu responsabilité waa wax dëgg yàlla ah maanaam ci réew mi. loolu taxawaay la boo xam dañ ko am. ba tax na xëy na dama am njort ni am na ñoo xam ne xëy na réunion yi ma doon dem wala Aziz wala du bokk. programme yu ma doon yu ma doon présider ci fànn googu. Mhm. ci confiance ñoo xam ne maanaam kóolite la ak kàddu yu ma doon yëkkati maanaam pour dëgëral Seydina Ousmane Sonko xëy na mën na am loolu moo leen déranger. Mhm. ñu jàpp ne tamit man comme sama position en tan que imam maanaam waroo yëngu ci loolu. Mhm. wala boog am na yenn kàddu yoo xamante ne lu mu tuuti tuuti lu mu woyof woyof maanaam waroo ko yëkkati di ko jëmali ci ku mel Ousmane Sonko parce par man dama jàpp ne lool la. ba na loolu ma bi mu amee jàngat bi ma nga jëkk def mooy mais lan moo tax mu demee nii. parce que dama def jàngat ma ne waaw man yàggaguma si parti bi xëy na li ma assisté sax xëy na bëriwul maanaam ñetti programme wala ñeent laa dem mais kon dèjà defaguma sax lu mat ñaari weer wala kon la moo tax mu nii ak ñi nga xam ñi ngi si am si at te ma anam responsable bi ma jël wala bokk nit may menacé ñoom jaaruñu foofu mhm. ma xam ni kon dal xëy na am na sabab lu waral loolu am mhm. xëy na au juste man mënu ma ko xam mënoo ko xam mais plainte contre x menace de mort nga wax. waaw mais nga expliqué nan la amee est nga ñi nga naan da lay menacé. waaw loolu daal man daal li ma xamante mooy yàlla dafa dogal comme ni ma la ko waxoon dama jóge juma benn bis. Hmm. dama jóge juma man léeg su ma jógee juma su may génn ay nit dañ lay maanaam di la nuyu di jàmmante ak yow. Hmm. parce que nit nag nga koy xormaal. Hmm. man su ma jógee juma bokk naa si ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy mujjee àgg seen biir kër. parce que nit maanaam am na fu mu lay teg maanaam di la accueillir di la tatagal di wane cofeel ci yow mhm. fa tabarakallahu kooku noo mën a def rek maanaam cër boobu da koy delloo mhm. maanaam da nga koy bàyyi mu jël tempsam saa yu paree nga dox ndànk dem mhm. yàlla dogal jamono yooyu xëy na ñu bëri jóge nañ jumaa ñii ñi ngi sees ñii ñi ngi seen biir kër di añ waaye xëy na man maa bokk si ñi nga xamante ne xëy na mujj nañ dugg seen biir kër maanaam ndax ngir loolu bi loolu amee dama dox ay ñoo xamante ni kat kat lañu yor yàlla dogal na kenn ki laa jot a gis te mënuma la wax kii la te kat kat bi tamit tamit amul plaque amul numéro matricule dèjà kon kooku day xaw a naqaree lijjanti kàddu bi ma ko sànnee ni na daan ne ma yow xaw ma oustaz xaw ma imam yaakaar naa da ngay jëm a ci wax ci ay parti yu gën a xam ne yow loolu gis nga boo def attention dan lay kii lu pare def noonu jaar fu bon xam nga. Mhm. bi yëkkatee kàddu googu après daa continuer dem am na lu mu si teg loo xamante ne rus naa sax nettali kon loolu nag bu amee en tant que kilifa ma gis li xew si réew mi loolu moo tax comme ni nga ko waxee ma jël plainte dem commissariat wax naan Nimzaat expliquer commandant bi. moom moo ma teg si yoon ba bind sama plainte ah wax dëgg yàlla dem poste bi maanaam jëbbal leen ko loolu tam bokk na ci sababu wax dëgg yàlla ñëw bi ma ñëw fii maanaam toog di waxtaan ak yéen. Mm-hmm. parce que tam àdduna noonu lay doxee. Mm-hmm. ginnaaw réew mi ay charte la te loolu moo ñu tënk yu mel noonu bu la arrivé du sax loo xam maanaam dangay ragal wala da ngay tiit parce que jullit pas-pasam mooy day jàpp ni maanaam bakkanam mu ngi ci loxol borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. ku sa mission jeex rek yàlla jël àla kuli xaal moo tax yonent bi ni naan nit bu la tëkkoo nga tiit mm-hmm. mu ne boobu gëmatoo yàlla mm-hmm. waaye tamit fi li ñu war a def lañu la ñu def fi ñu war a jaar fa tabarakallahu fa la ñu jaar moo tax mu demee nii fa tabarakallahu waaw imaam macha allah mm-hmm. euh, nettali nga ñu nin la menacé ak euh, ni nga xam ni noonu lañ la tiitalee euh, tiit nga wala tiita non yàlla yàlla xam na nag tiituma parce que loolu moom wax dëgg yàlla dimbal na si daal parce que ah. man nit comme man ah. mënoo ma déranger yàlla xam na loolu mënoo la déranger waaye dem nga police pour alerte waaw waaw loolu waaw loolu loolu dafa jaadu léegi man c'est que man imam mhm. euh, xam nga yow da nga ne yàggoo ci parti bi mhm. maanaam parti bi bi nga ci duggeeg léegi yàggul euh, tey itam euh, yow da ngay def ay discours ci xutba yi wala ay bayaan ngay def yoo xam ni hmm. da nga jël jàkka ja jël ko def ko jàkkaay Pastef euh, wala nan la yëf yi demee ba tax ñu war laa menacer parce que man dégguma la fenn foo xam ni yëkkati nga fa kàddu goo xam ni ay menaces war na jóg dal ci sa kaw léegi yow da ngay def jàkka ja jël ti jàkka ja def ko tribune Pastef wala nu yëf yi demee waaw kooku dem question la parce que nit ki ne hmm. bi nga laaj ni maanaam dama koy woyofal ma jàpp ni da nga ko laaj bi nag woyoful di waaw waaw man man maa que li tax woyof parce que tam diina noonu la hmm. am na mais yow mi nga xam yaa nga ko woyofal rek mu woyof hmm. parce que bu diisee a tontu waaye moo tax il faut nga woyofal ko woyofal bi mooy yàlla dafa dogal ay nit ñu ngi may bàyyi xel kon kàddu gi ma yëkkati dafa war nekk dëgg Mm. ñi nga xamante ne ñoomay seetaan ma bokk ñoom gox mm. ñoom mën nañu sax firnde wala tam ñu sedd loolu mm. mooy mosuma def bayaan dafa wax lu gis politique wala may jam kenn wala may déranger kenn wala wax lu gaañ kenn yàlla xam ne mosuma gaaruwaale man léeg-la su may wax mën naa jël état si ay loo xam da koy def safaan Mm-hmm. léeg-léeg ma yëkk sama kàddu maanaam sëf ko ñi nga xamante ne état li muy def ci positif est que yaa ngi koy wax comme li état di def ci lu baax mais dëgg la parce que état mi ngi yëkkati ay kii di taxaw ci social di def ci yenn yi est loolu yaa ngi koy wax xam nga loolu wala benn côté rek ngay waxee man loolu mënu ma ko wax. Ah. social mënu ko wax parce que man mosuma jot social. waaw ni ko noonu loo tegul sa bët gisoo ko mën a ci wax. Ah. islam nee na loolu da ngay maandu mooy loo xam ne tegul sa bët gisoo ko. Mm. dalul sa kaw. Mm. kooku mën a see addu. Mm. parce que nit mënut a yëkkati kàddu di wax si loo xam ne maanaam maîtriser wu waaye tamit lépp loo xam ne dañ ko gis muy yiw. dañ ci wax ñun suñu wàll loolu la. Mm-hmm. bu dee safaan tamit. dinañ ko wax te kaw wax bi day dëppook diine day dëppook charital islamiya hmm. waaw doo gaañ kenn doo lool kenn parce que tamit wax dëgg yàlla bëgguñu ëllëg koo xam ne wax dëgg yàlla da ngay yëkkati kàddu jam ñu hmm. loolu la ñu bañ waaw mais kon léegi lan lañ la war a mën a menacer quoi c'est que li nga wax ni man c'est que menace bu jógee Pape Djibril mii bu fekkee ne dafay nekk ci émission bi di def loo xam ne mu ngi may gaar waale peut-être mën naa ko menace ah. wala de mais bu fekkente ni bii dara amul léegi lan moo tax lan moo tax léegi ay nit jóg ne la dañ lay dañuy naan sa live waaw xam nga loolu lépp mën na nekk parce comme li ma la wax xam nga def naa ay jataay yoo xam ne parce que réunion bi ñu mujjee def maanaam daanaka si mbedd la woon hmm. genre jardin la la réunion publique hmm. xam nga loolu tamit njort naa xëy na comme mbooloo mbedd hmm. léeg-léeg nga yëkkati kàddu nit xam nga rek àdduna bi ni muy ni muy doxee man am naa sama benn mbokk sa benn wëllëre boo xamante nii wax na si benn jataay mais police jox ko convocation te pourtant mais mais sóoraale ko woon xam nga loolu dafay am parce que àdduna fu mu toll Sénégal lu musul woon am léegi moo am waa li am loolu mooy loo xamante ni nii danga koy def am njot bu rafet pour yow day woyof fekk am na ñu koy dégg ñoo xam mën nañ ko jël yóbbu ko fan maanaam agul foofu ci kaddu mm-hmm. waaye yow fekk yow sa jubluwaay wata yéwénal ak defar moo tax nga yëkkati kàddu googu. mais est-ce que nekkul ni au moment où nga choisir dem Pastef. Mm-hmm. léegi di militer wu. Mm-hmm. que nekkul ni moo doon tax nga bàyyi bayaan bi. parce que booy ah. bayaan. parti yëpp ñooy nekk sa kanam. booy xutba parti yëpp ñooy nekk sa kanam. kon yow amoo droit di wane pété bi au moment où nga nangoo pété rek. bayan bi da nga ko doon teg fa la bàyyi keneen mu bayan boo ñëwee rek julli dem sa yoon gëm naa ne loolu boo koy def leneen du la ci fekk. déedéet loolu tamit xëy na sa kii la mais islam doxewul noonu. Mhm. jàkka barab la boo xamante ñëpp ñoo fa daje. ay murit tijaan xaadir layen kuy dund sunna ku gëmul tarixa mhm. maanaam ñëpp a nga fa. Mhm. kon maanaam julli ñëpp ñoo fa daje parce jàkka néegu yàlla boo xam julli ñëpp. tarix boo mën a dog bokk. wala ngay dund sunna man ji may ji may def bayaan hmm. am na ñoo xam ne ay ibaadu la ay nit surtout sunna ñu ngi koy hmm, jullee hmm, ñii ay murid ñii ay tijaan ñii ay xaadir ñii ay laayeen ñoo xamante ne jokkuñu tarixa ñëpp nekk ay jullit kon barab boobu maanaam da li mu ko war a wax mooy li mu ko war a waxtaan mooy ceeb ceeb mooy lan mooy ñëpp ko bokk kër goo dugg ma nga fa mooy charitul islamiya waaw ceeb kër goo dugg ma nga fa exemple ceeb kër goo dugg ma ko moo tax islaam loolu la ceeb maanaam jigéen maanaam ñëpp ñëpp a ko bokk su ma waxee maanaam ngéyeen moom xam na li ma bëgg a wax dama jox exemple ngéyeen yi nag bàyyi leen xam nga ceeb maanaam kër goo dugg ma ko islam tamit ñëpp ko bokk jullit ñoom ñoo ku nekk am nga si cër ba tax na bu nuy wax si mbir yu mel noonu wala bari yu mel noonu en tant que jàkka maanaam dañuy yaatal hmm. duñu déranger kenn mais yow c'est bien mën nga di yaatal mais ki lay seetaan moom gisatul imam bi ah. Mhm. mais politicien lay gis politicien lay gis xam loolu tax des fois communication bi day jafe. entre yow ak ñoom xam nga boo ko yóbbul sa jàkka ji rek amu solo parce que barab bu nekk ak lu mu laaj. bu nag bëggee ne nag. am na loo xam maanaam sama yëg-yëg la. am naa droit mais yéen imaam yi da ngeen da ngeen di yóbbu parce que ba nit ña jóg dem am na fii <laughs> julli tabaski boo xam ne imaam ba tala taxaw naan xaw ma kii def na lii ak maire bi lii ak léegi yi dañoo jóg lem seen basak dem. man da jàkka yi ma julli wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ay kilifa ñoo ñoo fa nekk ñoo xam dañuy waxtaan di juba si kàddu mm-hmm. la ñu war a waxtaan ak mm-hmm. barab na mu war a demee mm-hmm. réerewuñu kon fa may jullee moom jàkka jooju mu wax dëgg yàlla loolu am ñu ngi lay nuyu d'abord que mm. euh, kii la mais gisoo est-ce que ne tamit euh, li tax nit ñi xalaat si début sa commencement tàmbali wax laa ko laa ko déggee. Mm-hmm. nga xam ne comme nit ñi te constat la aussi. Mm-hmm. ne nit ñi dañoo euh, comme imam yeeg sëriñ yeeg yëpp dañ leen a dañ leen a te toogee leen côté bee. Mm-hmm. parce que xam nañ ne révolution française depuis loolu avant boobu église bi moo ëppoon doole comme bu dee France la ñu jël par exemple en général mais est-ce xalaatoo ne nit ñi dañoo li ñu li ñu xool mooy. yéen boo leen ko jëlee est-ce que doo leen def comme sëriñ ak ndongom comme sëriñ ak ndongom quoi bañ a tey def rubrique loola tax nit ñi ragal leen. déedéet xam nga loolu lépp ñàkk a dégg chariatul islam yi la. Mm-hmm. pour man dama jàpp ne loolu la. parce que mm-hmm. gis nga boo xam boo déggee diine. Mm-hmm. parce que diine dafa yaatu. islam dafa dugg ci lépp. parce que islam ñëwul pour bàyyi société bi nit ñi ku nekk ku loo neex def loo neex wax ku nekk ab jaar fi la neex. dafa ñëw pour orienter. ba tax na orientation boobu ñan ñoo ko def mooy nitu diine xam nga nit yu diine ñoom nit ñi duñ leen peut-être boo nekkee président wala boo nekkee leen nit ki du la sañ a wax comme nit ñi mën a saña wax Macky Sall wala dara. Mm-hmm. tu vois wala saa ni mën a tooñee kenn wala Macky wala dara. ñoom mm-hmm. mën na ko bañ a ñemee tooñee kilifa bi. est-ce que du foofu foofu la. Euh, kilifa yi war jóg dóor la waaw il faut la kilifa yi foofu bala ñoo dugg si politique foofu la ñu war a préparer woo ba pare. Mm-hmm. indi foofu ba nga xam ne xam nit ñi xam nañ ne bu ñu yéegee lu defar rek la ñuy def mais duñ ko def euh, comme noonu. xam nga àdduna Sénégal fu mu toll am na yoom kilifa boo koy bañ am na wax yoom boo koy bañ maanaam doo defar mukk adduna moo tollu foofu ba tax da ngay engagé wu parce que nattu jullit moo ko moom tuuma goro ko moom léeg-léeg mën nay nit mën na yëkkati kàddu mu doon safaan ma anam mu dal sa kaw kàddu googu yëkkati yëkkati ko maanaam doon balu fetal wala wala wala xeer maanaam dal si kaw moom ba tax na islam loolu lépp ñun dañ ko préparé ba tax na kon loolu dañuy engagé wu maanaam ci kaw engagement boobu du farata su ñun comme Sénégal fu mu toll mu am lu ñu yàlla baaxee ci taxawaay ci orientation ñu gis koo xamante ni programme am discours am maanaam convaincre nañu neex nañu. ñu am si moom confiance comme ni ma ko waxoon si yonent yàlla Youssouf en tant que yonent ba pare fa tabarakallahu nekk nguur wala boo ko yor benn fànn ci wàllu nguur. nekk ministre de l' économie et des finances. en tant que xam nga bi ñu koy jox fonction wala boobu bi mu koy laaj moom dana ngeen jox ma ko ma doxal ko mi mi ngi ci biir système bi. Mhm. amoon na kilifa goo xamante ni président la République boo xamante ni moom moo toppat si moom. du mhm. dëgg. mu am si moom confiance. Mhm. xam nga kon kooku fekk na day daw responsabilité. kon du bokk foofu. wala bokk du bokk si régime boobu. mais daan lii bëgg na mu ko joxee. dinaa ko doxal ñu ne ko lu tax mu ne parce que am naa compétence bi ñu ne ko ak ban mu ne am naa xam-xam bi ñu ne ko ak ban mu ne ko tey itam ku nangoo liggéey laa mën a liggéey kon ñett yooyu boo jàngatee ci en tant que yonantu Sénégal di ñëw di dox ba Sénégal toll fii ñu gis koo xamante ni fa tabarakallah discours am da ko jëmale fànn googu wax dëgg yàlla mu convaincre Afrique gépp nekk jeune am barab bu mu nekkoon di jaayante set wicc mosul lekk dërëm am na ñu fa nekk doon ñëpp rek ay milliardaires. yow lii ngay def ca bayaan ba. bayaan baa ngi. xam nga foofu du la. bayaan baa ngi mais fii. am naa sañ ca ah. bayaan. parce que da ngay leeral. bayaan baa ngi parce que bayaan bi ba ba ba xaw a kobos kenn wala nga joxe exemple boo xam ne xam kii Ousmane Sonko lay exemple. wala dara nekk ma nekk yàlla xam ne bala nga def loolu amul juma Hmm. balaa nga xam loolu amul waaw <laughs> euh, maanaam mu amoon ñoo xam dañuy waxtu di wax hmm. euh, loolu maanaam kàddu yooyu doo ko dégg man loolu wax jógewoo ci beneen parti aussi ñëw ci parti bi foofu ci gox hmm? la nga def ca bayaan ba nga ko defee ah la déedéet doo <laughs> waxoo fa dara gaaruwaale woo fa kenn xam nga léegi man <laughs> ah. wax ba tudd état oh, jataay yi ma xosi leen man su may wax dinaa tudd état ah. mais su may tudd état dafa am te ni may tudd état noonu lay tuddee ñi nga xam ne ñooy ñooy opposé no ah, am war ma la daal mais parce que waaw xorma mm. man noonu lay man sama waxtaan noonu la parce que boo laalee fii gis safaan gis fa la safaan tamit da ngay laal foofu te kaw wax bi nga koy wax maanaam di maanaam di ànd ak yar ak teggin ak xor ma mm. pour wax la ni yar ak teggin dafa baax si lépp pour ma jox la si benn benn jàngale bu am solo euh, yéen imaam man yéen c'est que yéen imaamu yi mm. euh, xam nga am ngeen fekk problème ak courant nga fàtte ana imaam ya nga xamante ne bi ñoo fi nekkoon jamono ñaan imaamu géejawaay yi kërëb kërëb coow li ko euh, imaam xaw ma ah Sarr waaw imaam Sarr mais imaam yooyu Euh, est-ce que yow doo dawaloo nandite ne bon fii affaire yaa ngi bëgg kii naa fex parce que yéen imaam ngeen nandite ngeen. naa leen. imaam daa war a nekk nandite. imaam baax rek. est-ce que du est-ce bëgg kii xam ngeen di ñële moom kii rek léegi ngeen bëgg a dugg. yàlla xam na ni xam nga géejawe dafa nekk dëkk boo xamante ni ma dafa ubbeeku. Hmm. xam nga baal yi moo mel noonu. nit ñi booy seet ñëpp ñoo xamante. Hmm. te gis nga kuréel goo mën dem. Hmm. kuréel kuréel diine maanaam mën nañu bokk lu ñu gëm benn yëg-yëg ak bokk ki ñuy jàmm ku ñu sopp mooy prophète yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàkk en ay imam mm-hmm. Mm-hmm. mais léeg-léeg si ay gis-gis mën nañoo wutee gis-gis mm-hmm. parce que man man mënuma gëm ni nga ne imam la te fa tabarakallahu di am looy xeex ci kaw xeex bi nga koy xeex président recevoir la wala mu am koo xamante maanaam day ñëw convaincre la yow ña nga nekkoon mu mel ne mosu leen xam <laughs> loolu day maanaam man man gëmuloo imaam koy wax waaw mais man nag yàlla dafa dogal <laughs> man yàlla dafa dogal man yàlla dafa dogal xool amul benn régime bu fi mos a jaar boo xamante ne mos naa lekk seen dërëm hmm. parce que man du ma tricher bi ma dundee ba léegi man am naa ay jaar-jaar jaar-jaar bi mooy def naa aventurier yor naa dara jàng naa alxuraan dawal naa kalandoo def naa marché ambulant amul lu nit di wax si dëkk taxaw ko kon dèjà am na foo xamante ne nii su ma jëlee sama responsabilité am yëg-yëg boobu dugg fa kon xam naa sabab bi mais imaam yi ku nekk ak sa cër maanaam bokkuñu parce que ku nekk ak sa taxawaay mais man sama taxawaay mooy pour dëgg nekk rek maa ngi fa ala kulli xal. macha allah ban message lay lancé. imaam xam naa 4 4 4 bi da koo ñu xaw ko tooñ rek mu tiit. ah oui maam xam naa xale yi dañ la doon tooñ rek moom <laughs> moom moo jaaxal wuñ la lépp lépp mën naa ne de waaw mais fagaroo gën faj nag yàlla rek a xam nag et puis ni nga def nii baax na dem porter plainte contre x Omar waaw waaw message bi may bi may jël rek mooy fa tabarakallahu ah ginnaaw ñun xaw na yëngu mbiru transport am na lu ñu ci xam yàlla dogal na saa njóogu sax sama xale yi nekk amoo siis terrain amoo siis bi garage boobu wax du yàlla ah, man falaa nekkoon yàlla yàlla dogal dafa am ay clando waaw sa moom c'est que nag ñoom ñëpp ay ay xaritam lañu booy moom moom borom baax <laughs> ah, wax dëgg yàlla gisuma ko ay clando ñoom nee nañu su ma ñëwee ma ne ma wax saa njóogu mu gën leen bàyyi ñi ngi koy nuyu ah, nee dem nee dem di di sant baax ci taxawaay bi maanaam wax naa leen ko waaye ñu ne nag maanaam ñoom ñi ngi seede ni ñoom secteur bi ñu nekk mm-hmm. dañu nekk ay jafe leen war a jox mhm. maanaam kenn jox leen ko gars yi dañ leen sonal te vraiment amuñu amuñu amuñu amuñu ko doon couvrir nee nañ sax maanaam covid bi am na ay xewal yu leen joxe mi ñoom jotuñu te ñoom ay citoyen lañu waxtu wi jeex na ñoo ne kooku na kàddu boo dinañ kon daal kon daal ñu ngi leen sant ñëpp waaw di leen gërëm di leen ziar di leen bala xaq di ñaan borom so yàlla na fi yàlla boole jégal yàlla defal ñu sutura ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu tamit ah wax dëgg yàlla jataay bi mhm. barab bi moom wax dëgg yàlla barab boo xamante ni wax dëgg yàlla bu doon sama sago mhm. ak léeg-léeg sax ngeen ne ma imam ñëwal yeneen fànn sax am na ma ñëw waaw su ngeen gisee ma sàkk loolu maanaam dama dugg si barab bi am na lu may yëg mm. dama dugg si barab bi gis jàkka ji ma nu mel sama xel dem si ku tedd gi seen Lamine Niass mu nekk barab boobu wax dëgg yàlla dama ko sopp wax dëgg yàlla dafa am lu ma yëg loolu moo tax wax